leneen point yi ay point la yu nga xamné digënté diggante étudiants yi la woon ak ñi leen di jàngal dafa am li ñuy wax fofu coordina des coordination des étudiants de Bambey nga xam dafa dajalé étudiants wu Bambey yépp nga xamné ne ñu bokk UFR bu ñuy mënta jàngé tamit ñom seen amical yi dañoo daja am nañu amical mais dañoo defale coordination loolu néna naa sunu yoon ci université yi mayewu ko mais man mun naa nangu ne gis naa ne am na université yu bëri yu nga xam ne loolu daf fay am mais ñu tase aussi ay situation yu nga xam ne day dem ba ñi nga xam ne ñoom ñoom ñooy jiite université yi dañuy ne taxawaay yu coordination yooyu méngoowul ak li nga xam ne day jëmale jàng mi kanam bu ñoom bu boobaa ñu suspendre ko li nga xam ne nag amul ci këyit ci yoon ñi nga xam ne yoon may na leen lépp lu nga xam ne dafay nekk ci université bi jëm ci njàng bi ñoom dong ñoo ci war a wax buñ ko nee nañ ko supprimer kooku ñoom it ci yoon lañ nekk ñu décider ko ñoom nag buñ ko décider kenn mënu ci dellu dul ñoom ba étudiants yi grévé ñun ñi nekk ci espace bi xam nañ ne blocage bu rëy lay indi parce que kenn mënul forcer assemblée mu dellu si ci kenn mënu ko étudiant bi mun na bu fekkee ci nit la dal koo ko mun na demander recours gracieux mais moom recours gracieux bi da ñoom dañuy d'accord ne dañ ciy wax am duñ ci wax blocage ñun système bi automatiquement xam nañ ne blocage bu metti lay jur booba la ma waa SAES e secrétaire général u nga xam ne ba mu gisee affaire bi yëngatu lañu ci commencé waxtaan mu ne ma moom bëgg na ci dox tànk jàmm moom ak waa SAES e ma ne ko loolu lu baax la parce que gisuma ci système universitaire bi crise bu mel nii am ñu génn si lu dul bu fekkee ne jàngalekat yi ñoom seen bopp ci seen biir ñoom ñoo xool del jàppal waxalante ñi nga xam ne impliqué wuñu wax ak ñeneen ñi indi leen ñu nangu xoolaat affaire bi ma ne ko loolu dina ci baax ñoom ñu dem ci benn bis ñu dem bambay waxtaan ak kat yi waxtaan ak étudiants yi kuñ ci wara déllu ci si étudiants yi ñu wax leen né décision bi jël ci yeen pour ñu déllu si ci da ngeen di nangu da ngeen koy nangu ba pare nangu ne mun ngeen balu ñu ne kat yi tamit ñom nañu xol naka lañuy fexé bu fekkee am nay effort yu nga xamné ne nañ ko def ba lalat affaire yi ci jangale bi ba nga xamné ne mun nañ ci déllu ci def ko kat yi nangu né ñom dinañ wat assemblée de l'université

jiituwuma leen ci ñoom ñoom en toute autonomie ci seen nuñ ko gisee ak nu mu leen doyee noonu lañ ci réfléchir